mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar leen tey nag ñu ngi fii Grand Dakar ci mbedd image yooyu ngeen gis yaakaar naa ne général bu fas lañ seet si tey Babacar la tey ci kàddu gi comme ni ngeen ko xamee ànd ak Moussa di nuyu yàgg bëñ ba mooy xaw a metti xam nga rek mais général lañ seet si kilifa gi mag lay bëggee fi nga dëkk si Grand Dakar bi wala. laa dëkk waa tur la Modou. seen mbër bi da lañ seet si tey général. Ah, suñu mbër bi waaw loolu it moom rafet na moom. gars yi dañ ne daa bàyyi làmb de. bàyyi làmb xool ko boo xoolee di nga xam ne bàyyi na làmb wala bàyyiwul làmb ku bàyyi làmb kay na xam. bu la neexee ñii tamit daa mel ni ay ay ci ci ci waa koñ bi la. teer yi xanaa ñi war nañ maa mën a ñawal sax sama gars yi maa leen tur bi nan la yow. waaw Gora. de. lu bëre de. non ah. góor bëgg naa la. man Ibou laa tudd waaw. non ngi ci entraînement yi waaw waaw. tey yaa ngi nii Fall ba tey bu la neexee kii itam xamee naa ko général copain bi copain maa ngi lay bëggee. maa ngi lay bëggee yow tur bi nan la. man Aïdara Badji. Aïdara Badji waaw. seen mbër mi comme li ma ko laajee ñëpp dinañ dafa daa bàyyi bëre. non bàyyi bëre bàyyi ñu bëre sax gars yi ñoo bañ a jël ah gars yi xanaa. ah gars yi gars yi ne ci làmb ji xam nañ seen bopp. al ma koy joxal comme yéen a bokk Grand Dakar koo koy jox comme adversaire. ah dañ seet parce que man wala adversaire am laa man adversaire am c'est très sérieux ci man la ko jëlee man maa ko daan fii te vidéo yaa ngi fi waaw. yow boobu ba foo nekkoon ba écrit nga nekkoon. non nekkumoon ci écrit nekkumoon ci écrit te maa ko daan fii fii fii nii waaw te tukul di teew na ñu nataal. maa la wax kon nañ dem Moussa général la nga ne toog si moto bi. gars yi nag nañ bàyyiwul bëre comme bàyyiwul bëre. général sa koñ lañ la fekk tey ginnaaw buñ la nuyoo yàgg gars yi xam nga café geeg a ngi si biir naka yëngu yi. waaw sant Ababacar. Sadikh. maa ngi bëggee. waaw alhamdulilah général ci biir Grand Dakar ak yi mu mel ni sa diggante gars yi daa mel ni tax na de. waaw noonu la mos demee nag. ndax maa ñoom moom vraiment ñoom ñoo ma yar. fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yoroo lii laa fi xam quoi lii laa fi am tamit waaw. am na ci ku ma jël léegi nee na moom bëri ngeen fi mu daan la fii ci koñ bi kooku mooy kat. Péro amoon nag. Ah. moom vraiment daan nañ bëri mu ñu daan mais léegi mënatuñ daan de. Ah. Mhm. daan nañu daan nag mais léegi dañ koy commencé indil ay problème moo tax si yim ñu daanoon bu njëkk ba yooyu lay jël léegi di ci sukkandiku ah. <laughs> taalibi Cheikh Modou Kara Mbacké nooree ni la ku baax waa ju baax. waaye ñoom taalibe aussi ma koy bëggee aussi. général damay ñëw ak yow si làmb ji rek général mën nga ma diggaatal sa carrière ñaata combat nga jotagoo bëree. waaw ah, Babacar man sama carrière bëri naa ci treize combats. ñaata victoire. am naa ci dix victoire. benn machine. koo mat si nii Pambaay. Pambaay da ngeen mat si nii. mat si nii lañ premier combat bi man maa daan deuxième bi ñu machine ni ma daanat ko. loolu palmarès bu leer la banaan nga duggati ci lamb sax mën nga ko fàttali nit ñi. Mhm. le le 18 mars 2011. le 18 mars 2011 laa njëkk a bëri ban combat foo bëri foo njëkk a bëri Demba Iba Mar wala. Iba Mar Diop ci sa Diop bi quoi. waaw sa Diop bi laa bëree. Ndu Taaya. Mhm. bés boobu kan moo doon bëri grand combat bi. boobu ki moo doon bëri grand combat Naar Touré. Euh, naa tudd ak kii Ablaye Wade. naa tudd Ablaye Wade di nuyu Naar ak Ablaye Wade Ablaye nga Espagne Naar nga États-Unis baax tamit champion yooyu noonu. di leen bëggee. général départ si làmb euh, wala sa balaa ma ñëw si départ bi lu la inspiré yow lan moo la inspiré ba nga dugg nekk mbër quoi a nga amoon idole avant ngay bëri wala nangam. non bettu ma nag parce que bi may nekk booy dama bëggoon làmb trop trop trop trop trop su may jàngi yëfi làmb lay dund. dafa def Fass dañ doon ne Blaise Diagne man may jàngee ko rëdd sama mag tamit di jàngee Blaise Diagne Pape Thioune nag chaque ngoon rek damay daw foofu di seetaan waa écurie bi quoi ma bëggoon Moustapha Gueye lool tamit nag waaw moom moom ma gën a bëggloo làmb ndax ni mu doon bëree ni mu meloon fonkoon làmb daal ma bëgg làmb tamit trop ba pare bëgg écurie Fass ba mu jeex tàq saa yi ma duggee ci écurie bi rek di leen seetaan damay bëgg. du ma du ma ko du ma ko tàyyi di wax sa saa yi ma saan génn si gri bi su ma laalee rog mbalax wala ma laal Ousa Sow wala Tafa Gueye dama koy bëggee dama waaw ah, naan tey laal naa kii affaire yi nag. mais léegi nag général départ ci làmb commencé di bëri di wane boppam bañ ràññeeku yaa ngi dégg ñu toog nga dugg si tournoi ñëw bëre xam nga waaw waaw loolu am na général am na solo jaajëf jaajëf góor kontaan ci yow loolu ci la bokk du mën a ñàkk maar léegi su ma ñëwee léegi nag nga ñëw si tournoi di bëree di daan di bëre di daan ñëw sa balaa ma ñëw si tournoi bi nga bëre Farouz yaa ak Farouz mën nga diggaat ci combat bi ak ni nga ñàkkee combat bi. waaw maak Farouz combat la boo xam ne préparé woon nañ ko moom mu doon benn champion boo xamante ni mbër la bu naqaree bëreel mbër la bu neex bëreel parce que bis mu ñëwee ci làmb ji toujours bu jot day nekk en état ñu ñu préparé ñëw def lañu war a def yëpp ah mais làmb. dafa am vision am yaa koy moom am vision am doo ko moom jour boobu nag xam naa dafa bokk ci ñu moomul ñu bëre ko tamit ci fulla ak fayda waaw yàlla may ko ci ndam ma koy ñaanal mu jikko ah. Laye Pythagore tamit defe naa bëre ngeen. waaw mu daan la. Laye Pythagore waaw moom moo ma njëkk a daan ci làmb. moo la njëkk a daan ci làmb. affaire bi métti nag diis gën gën gën gën gën gën. waaw <laughs> yoon mi sori. Ah. <laughs> may ñibbi si mel. parce que mosoo woon a daanu boobu. déedéet boobu bëri naa six combats di daan. waaw daan rek laa xam te man dama daan ñëw rek xam nga samay làmb daawul yàgg. man damay ñëw rek ay seconde ma defaral la bagaas ñëw jàppale daan la affaire yi nag gaaw xam am na solo léegi nag damay ñëw tout droit si tournoi bi nga duggoon bi la Fallou Ndiaye boole loon yow ak ñoom ndongolo ñaq jariñu ak Pape Mbaye tournoi boobu biñ ne laa da dugg lan nga njëkk a sentir. waaw boobu nag euh, avant tournoi bi dañoo nekkoon ci benn affaire moom ni parce que xam nga boobu damaa toogoon deux ans bëriwuma sama tànk bi da doon métti léegi nag man ma dem ñu waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo ma war a préparer waat pour ma mën a ñëwaat ci làmb ji bokk léegi nag ñoom bi ñu tegee seen programme ne ma lii ngay def pour mën a àgg fii tombé tournant bi Fallou Ndiaye di ma proposé affaire bi Moustapha Ndiaye quoi Moustapha Ndiaye moom moo ci gënoon sonn nag vraiment vraiment après Fallou Ndiaye tamit noonu biñ ci d'accordé ba ba ma war ci bëre tombé préparation boobu ñun ñu bëggoon. gars yi nag comme ça ci biir année bi nga war a bëre trois combats yi kon yi ñoom ñu gën a yokk la ñu war a def ñoom Fomba vraiment ñoom Père gars yi nga xamante ni ñoom ñoo may jàppale yëpp. liggéey bi waaw yokk bi nag. moo tax ma ñëw bi ma ñëwee ci si tournoi bi tiituma ci dara parce que xam naa ne indi naa li ma a indi ndam yàllaa ko moom mais li ma war a am am naa ko daal su ma ci amee ndam du ma bett su ma ci kay la may bett. am na léegi bi sa premier combat mel ni keroog da nga ragaloon bëree bi indil ko xeex ba daan ko ba gagné ko daal. waaw boobu tamit man man bëri moo ma gënoon xeex ñu bëri nag dañuy wax ay xeex bi xeex bi xeex bi man man bëri ma gënoon te it maa ngi doon bëgg di bëri moom. mais moom it xam naa dañ ko indil benn système boo xamante ni bëriloo wuñ ko dañ koy indiloo benn affaire boo xamante ni daf ko war a def rek ñibbi wala dañ lay wax ne la kii bu temps bi yàggee mën na la sonal. boo xeex ak moom mën na la lii mais lii da nga ko jàng ba mu mokk bis boo ñëwee nga appliqué ko nga am sa vee nga ñibbi loolu la bëggoon def na man ma xañ ko ko nag looloo waral nag xeex bi bari nga jël ñàkk jariñu ñu ne yaay favori ndax daanoon nga ko moom mel ni da nga ñëw sous-estimé ko ba la la ca dal dal la ci waaw loolu tamit amoon na ci parce que bi ma ñëwee li ma waroon bëre si bëréwu ma ko ma ñëw tamit làmb ji tamit xam nga làmb ci biir làmb ji mën nga jaxasoog mbër bi wala nga xeex ak mbër bi soit mu laal la fenn wala mu jàpp la fenn nga rëcc léegi loolu ci biir làmb ji da lay excité man ma bëree nu ma warul bëree moom mu doon champion xam nga di def li mu war def xam nga xam ñu bëri dañuy gis ni daan na ma que man mais moom am na lu mu indi woon lu mu indi woon nag lu dul naa jàpp tànk général bi def ci lii def ci lii man it xamoon naa ni loolu lay def mais boobu wóoru naa sama bopp xam nga yaa gën a xam ngay jéem a xeex ak moom xeex maanaam daal di dox si koom di ko di ko dóori. Ah, mooy ni ko reporté rek. mu <laughs> mu wàcc rek juwaloo ak yow. su ma dégloo ni nga ko reporté laa ma ay séeréer mi lu ko dal ay séeréer tey nu mu ñëwee nii. la nga def kat daa xaw a yéeme. kenn dawul dóori te ñàkk xam nga ne ndaanaan la. gis nga moo tax. dafa mën a bëri. xam naa ne général xamagu ma <laughs> demee noonu. léegi nga ñëw koo xam ne moom ñëpp nañ mooy sa wuj ci làmb sa concurrent la muy Pape Mbaye ndax seen diggante daa yàgg boobu combat itam nekkoon combat bu ñëpp doon xaar mais mu mel ni kera combat dafa mujj yomb ci yow lu waral yomb combat boobu te ngeen bëri ñaari combat yëpp dëgër. waaw xam nga xam nga bis bis booy nekk ci làmb di di bëre sa expérience day yokk nànk-nànk looy gën a bëre sa expérience di gën a yokk loolu gën a dem sa expérience di gën a yokk te man moom man nag moom dañoo njëkk a bëre deux mille deux mille onze bëriwaat deux mille treize non deux mille deux mille quatorze bëriwaat deux mille dix huit xam nga combat yi am na décalage man nag maa ngi ciy màggee maa ngi ciy jàngee maa ngi ciy gën a xam maa ngi bëre ñeneen ñoo xamante ni tamit seen bëre sama bëre ma ciy jàng ndànk-ndànk moo tax su ma ñëwee yooyu noonu dafay gën a yomb loolu moo ko yombal parce que moom it maa ngi fàttaliku ci bi ñuy taxaw noonu mu naa ma ni nga def ñàkk jariñ nag moo ko def ma ne ko mukk mais que dama gis nga xaw a dox ci kaw mais da nga mel ni ku ku koy def lentement yéexal ko. waaw boobu dama ko doon cons di ko sirite ndànk-ndànk di dajale ba mu bëri ma tëral loolu la demee. mu mel ni Pape Mbaye daane ko noonu jafe na wala la wariwul lu mu am ci lam wala est-ce que mas naa am. mbër la nag mbër la bu mën a bëre mbër la boo xam ne day tëj tamit sa bëre bis boo ñëwee di bëre moom. moom da lay njëkk wan ni yow man su ma neexee du ma bëri ak yow am na bañ am na yooyu yëpp mais jour boobu man may ñëw nag daf dafa am lu ma ñëwaale ndax dama jël li weesu boole kook li ma indi ak man moom fi ñu jaaroon saa yi ma ko daanee moom mu bañ xam la affaire bi di dem di dem di dem bi ma ñëwee ne ma dajale yooyu yëpp nañ léegi man naa ko daal di leeral waa ñun nga xamante ne kii arbitre bi sax du tala yëgit sama loxo ndax jël bu leer waa ma daan ko ba jéggi ko dem léegi nag nga jóge fa ñëpp naan général général nga toog bëreetoo defe naa def nga ne balance at bi passé bëree woo ko lan la problème mu ñàkk adversaire la wala dangaa ragal ñi nga war a bëreel wala dangaa bëgg loo mënta jot. waaw ah, yooyu mën na ci am xam nga yi boo nee damaa ñeme ñeneen dafa ragal boo nee da ngaa ragal xaw ma mais daal saison bi bii passé ku am xel di suivre làmb xam ni saison bi dafa xatoon trop trop trop ndax yi daje woon dafa bëri. ba pare élection yi ci la si la nekkoon weeru koor gi si la nekkoon. coupe d'Afrique bi si la nekkoon. xam nga loolu nag dafay daal di xat benn peeru xat boo xamante ni foog nga mën a comprendre leen ñoom ñi lay tëgg dañuy bëgg adversaire bi ñu lay booleel. adversaire yi ñu lay booleel yenn sax yi ñoom du ñu pare ndax bëri na ci mbëri comme li mag si naan mbër mbër bu ndaw. du préparé day pare mais fii ñu ñu bëri dañuy préparé. mais sa combat. waaw bari bëri doxoon nañ mën a ñoom soxu doxoon nañ man ak ñoom Amed Dem doxoon nañ mën ak ñoom kii booy bu nekk fële ne booy bu nekk géejawaay Marle doxoon nañ yooyu noonu yëpp mais ñoom xam naa ni dafa nekkoon dañoo nekkoon ci ñàkk pare bi te bëgguñu defet tamit te man bis boo dajee man sa defet day yomb loolu la ku mel ni Marle ndax yomb naa jox defet non man awma belem yooyu hmm. man moom Marle daa mën a bëri te gaaw de macha allah décidé pour nga am defet danga parce que man mbër yi ma fi fekkee nii woon defet ma jox leen defet dañu bëri de. actuellement ñu ngi dox sa combat nii. waaw ak kan. instant ñu ngi ñu ngi may expliqué ñaari booy yoo xamante ni war naa bëri ñoom mais su bis boo waxee fii nii tey. maanaam mu jur leneen. jur <laughs> leneen ban promoteur koy dox. <laughs> non ci biir ñoom la rek. xam nga ñoom dañuy liggéey mënoo expliqué kii expliqué kii. ñoom ñu ngi job quoi ñoom it xam nga yàlla yàlla sotti seen i affaire mais yow sa xel ci ku mu nekk yow su ma la man sama xel. sama xel ci Balla Gaye la nekk. <laughs> waaw. yow mii nga dëkk Balla Gaye numéro. moom laa bëgg a bëreel. Balla Gaye numéro dëkk ci jëflante naa ak sa patron Gris Bordeaux te defe naa keroog neexu kon ci yéen daa mel ni. moom laa bëgg a bëreel parce que moom mbër yow bu ñëwee day taxaw rek nga xam ne kii dafa bëri si. bu doxee sa kaw du mais lenn tamit dama fay ñëw mu écrit bi nga ne écrit bi moom dégg naa doxatul bokk na si écrit yi gën a dellu ginnaaw la wax actuellement. man kay sénégalais yee ko wax danañ seen écrit doxatul Fass Fass gañ xamoon ak Fass gi am léegi nañ du benn. ñii seetaan làmb. ngi. lu seen problème écrit Fass. non ñun non problème. am ngeen problème. non non da ah, am na ci yow bëreewoo daaw gi euh, kële nu mu tuddati Lagrosse ay Forza ñoom ñëpp kenn bëreewul. Gris 2 bëri ñu daan ko Gris Bordeaux bëriwul Papa Sow bëriwul loolu du problème. làmb ji làmb ji déglu fii làmb ji ñi bëre daaw jéeg am ndam année balance daaw dafa bëri. mais man écurie Fass laa wax yéen ba nga ne. waaw. lan la amu ngeen problème. non non amuñu problème. Hmm. ah gisuma ko de boo ko gisee dem sama waxee. su fekkee laal gis naa ne problème la man ma wax dama dégg de ci ma may gëstoo ko dégg ci nit ñi ñu ne mbër yi ñen ñi nangootuñu kilifteef nangam nangam ku nekk da nga jël sa yoonu bopp ku am sa combat yaay gérer sa entraînement bopp ak ña nga ña la doy ak yooyu loolu moom écurie Fass ah man de ñi nga xamante ni maa ngi leen doon gis si écurie bi ñoom ñoom combat gérer luñ ko seen bopp si écurie bi lañ doon daje di contact di entraîner di yeewandoo matinal bi regroupement sax moo daan am na la ñii ñu ngi ne préparé da ngay préparé ba sonn ñëw comme li champion boobu doon nga gis mbër bu préparé entraîné taxaw mel ni mu war a mel ànd ay mboxam defar ay bagages am ñëw arbitre rek ñu tàllal ko loxo rek mu daanu. mu daanu ñu ne su boobaa entraînement yi réer. ñaan yaag mboq yaag. <laughs> Euh, Gris de lu ko daan ci rek rek. làmb du sport bu ñu mën a natt. mais de lu ko daan kon du rek rek. wax ni mu ngi ci loolu <laughs> xaw ma Gris de préparé na ànd ay mboqam. est que pare woon na. si ñun ñoo doon contact. pare na rëg-rëg mi ko njëkk bi njëkk a jàppante ak moom xam na ne kii pare na. ah deuxième jàppante tax mu woyof. waaw nga rëg-rëg ñi mu ñi mu ñi mu teel a jàppanteel ñëpp. at bu jàppanteeg Gris de mu demee noonu. mu ñaar di bëre seeg moom. mu demee noonu tamit da ngay xam ne làmb moo naqare natt rek Gris ku ko yeewoon. ba mu jóg nga ñu ne ko rëg-rëg da daaneel du ko gëm rëg-rëg tamit leer na ku ko yeewoon ne ko da daan Gris de du ko Reug rek nag mbër mu gëm boppam la de moom la gaa yi wax de mais léegi su ma ñëwee su ma ñëwee ci maanaam tamit xam naa foofu lañuy jeexale ku mel ni seen grand fi mu nekk nii am na combat muy Papa Sow digganteem ak Siteu loolu yëg nga combat boobu. si yëg naa ko. noo ko gisee. waaw ah, balaa ko ci ñaanal ndam ndam lu sedd ci moom ndax moom méritoon am ay ndam yu bari ndax dafa baax te dafa nekk koo xamante ni bis booy def sa yëf. da ciy assister te it jàngal nañu parce que xam-xam bi mu yoroon bi mu yor ci bi bis booy bëreek moom dalay wan yenn saa yi ngay bëreeg moom sax jàpp ko foo xamante ni da nga ko war a daan daanoo mooy la kaay fii fii bis boo fi àggatee mbër bi defal nii defal ni xam nga koo xamante ni noonu la mel moom mënoo lu dul rek bis bu amee bisam yow nga assister ko ñaanal ko ci ndam. te it la boo xamante ni xam na yoon bi mu war a jaar pour daan Siteu leneen li mooy dañ ko koy complété ndax du tey ci làmb yàgg na bëre xam na fi yoon bi mu war a jaar. mais daan Siteu Siteu nga wax de tarkindaa la de. tarkindaa <laughs> dama koy dégg muy turki tarki. Ah. Hmm? yoon seen kaw la jëm si de. non bi est-ce tarki beeg turki bu jeexul. lu mu lu lu muy changé pour yow. guy gi dindi ko lool. guy gi da koo dindi. waaw loolu lañ wax. yéen yéen lu ngeen nar lu ngeen ko nar def yéen. non ñun moom yooyu duñ ci dox. ci lu ngeen di dox. ñun ci li ñuy dox mooy bis bu ñu ñëwee indi stratégie bu la daan entraîné ba wow ñëw ànd ak suñuy mboq bàyyi la ak la ak yooyu yëpp yow nga jël. si taag Papa Sow ku dàq bëre. non loolu du loolu du question. non dama la koy laaj man question la ci man. nga ne Papa Sow. moo dàq moo dàq bëre kan. yokk ci fuuf. Papa Sow dàq bëre kan. foo teg te si waxuma expérience dàq bëri bëri si te mën naa bëri de général. non bëri nekkul lu ñuy dàq nit ki ci fekk si ko tey dàq ko bëri nga yàgg ci géew bi yàgg ci làmb ji yàgg ak mbëri xamante ak mbëri bëri kii bëri kële mbër biy song nga bëri ak moom bi bi taxaw nga bëri moom. ku dàq xeex. Papa Sow. koo yaakaar mu doole kon. Papa Sow. mbër li nga wax noonu ëppul. Papa kon da ngaa jàpp ne papa ëpp li lépp Siteu. waaw ci maanaam xam nga tey Papa Sow tey ku dàq bëre. pour dàq xeex Papa Sow ngay wax ku doole Papa Sow dafa am liggéey bu muy liggéey pour agsi ci ci bis ba yàlla bu dara dal moo ëpp doole Siteu su booba si loolu laa gis kon daal maanaam Siteu bu ma la déggee moom combat boobu amu ci benn sens non xam nga Siteu moom mooy booy hmm. moom mooy gën a bëgg xam naa ni moom mooy dugg fii dugg fële dugg fële hmm. mais Papa Sow su boobaa ñun dañ koy gën a xamal loolu xamal ko ni kii booy la ndam moo koy gënal ndam lay bëgg dina ko jaral lu ne yow li nga daan def di am ndam doo ko bàyyi da nga ñëw entraîner te moom xam naa ne moom entraînement moom kenn du koy sikk waaw. am na solo kon loolu waa jàmm gën a ngi lay dégg tontu du forox ñoom dinañ la tontu ba mu saf waaw tarkindaa yi léegi looy looy tàggoo sa supporters yi ak waa Fass yi maire bi daa mel ni yow lay xeer. balay mbalak dina may yi <laughs> man damay tàggoo ni wax ni maa ngi ñaanal gaa yëpp jàmm di leen ñaanal salaam di wax ni làmb ji. mais grand bala ngay tàggoo grand contre bi ñuy wax si lamb ji yaa ngi koy dégg. comme. mbër yu mag yi jël yu ndaw yi. mbër yu mag yi ñan la. général xam nga mbër yu mag yi. comme tey Balla Gaye Gris Bordeaux Modou Lo Eumeu Sène ay Bombardier Tapha Tine maanaam ñu gestu ñeneen ñi nga xam ne dañ leen jàpp dañ xaw a féete suuf. ah ok pour ñu may chance ay ñoom Ama Baldé ñoom Boy Niang et cetera wàcc ay guy gi waaw waaw comme ni Papa Sow di def nii dem bëri Siteu xam nga grand yi ñoom loolu la ñu war ñoom sax loolu la ñuy def. loolu la ñuy def non léegi yooyu dafa mel. giri koo koy jox. giri giri boobu mën na bëree. waaw giri giri moom dafa. Gris dafa am benn sens mën na bëre ak Bombardier mën na bëre ak Lac de mën na bëre ak. moog Lac de Guiers mën na bëre ak Balla koo koy jox. Balla de. Balla Gaye de mën na bëre ak Gris Bordeaux. comme maa jànq lañ wax de général. ah comme Balla Gaye de ak benn booy waa mais Balla Gaye de xam nga moom nag làmbam dafa tëju ko ci côté boobu parce que moom du bëre ak ay Ama Baldé. mais am na booy boo ko war a mën a jox xanaa. du bëre guy gi. non waxuma ñooñu. kon kii moom mu bëre ak Boy Niang. Euh, Modou koo koy jox. Modou Modou Lo mën na bëre ak Ama Baldé tamit. Eumeu Sène. Eumeu Sène. tamit mën na bëre ak mën na bëre ak ah. mën na bëre ak ah ci booy rek ba tey. Ah, na bëre ak Gris mi yow mii gi Tapha nag yow ci booy nga. waaw bu neexee courage jëmale sa kanam mu dëll. loolu moom du ma may la Boy Niang. Tapha Tine ak Gris ndax neexul nga may wax Tapha Tine Gris 2. Tapha Tine ak Gris Bordeaux. waaw est-ce que loolu dàqul. ñaari xeexkat la ñu de. waaw ah, boobu tam baax na. li nga ma laaj laa lay wax nii de. man sa ma yëpp. <laughs> mi nga yow tey xamoo luy faj tooy. tey mi nga rek yow nga wax ji daa métti. Eh. looy tàggoo. Ah, may tàggoo di wax ni maa ngi leen di bi ngeen def yombul. ak sa gaay yi nga xamante ni ay ay jantal joo lañ ñu ngi def seen job normal xam naa ni ko parce que du ñu ay ngaaga <laughs> man maay bool bool bi kaw kaw bi mais ñi ay boy town la ñu. moytul ma bool bool yi nag bool bool yooyu nante yu mag <laughs> ñaari jabar lam dégg na. non benn la. ah kay waxaale xoolal loolu sama benn grand Cheikh Badji dafa bëgg a takk ñaareel quoi. yow takk koo jabar. mais nee na. nee na foog ñu waxtaan ak jabar ji sinon takk suuf lay mën def. yow am nga jabar. man amaguma soxna. am nga gel. gel waa. ana gel bi. gel bi mu ngoon fii ci émission bi ah. fii la toogoon léegi de. <laughs> général am na métier. man waa. lan mooy sa métier. menuisier bois. kon ndax naa yaa may defaral lal ak armoire. amul benn problème. Ah. amul benn problème léegi sa xaaral sama grand bi war a takk jabar neen day takk takk suuf fa mbaana dafa bañ nee na takk bi da nga koy takk ci kaw mu leer. moom tak bira la ci gën a wóor di ko yellu ñaareel la de yellu moom julleeg julleeg kii doy na ci tàkkusaan ak ak ak tisbaar timis kay dañ koy biral ca kaw ah. kon timis kon kay kon kay takk kon da def comme timis biral takk moom dañ koy biral ñëpp yëg ko ñëw léegi Cheikh Badji la tudd ah góor lu muy takk jabar di nëbbutu <laughs> waaw léegi man may bëggam di bëggee waa Giri Fass yëpp di bëggee sama papa yi ñoom ceen Dramé ñoom Ibra Mbaye ñoom Guèye Camara aussi Guèye Camara sama papa bu baax maa ngi koy bëggee bu baax di bëggee père Moustapha Guèye aussi di bëggee Abbas Ndoye suñu président di wax ni ñu ngi koy bëggee bu baax a baax jàpp ci di wax ni maa ngi bëggee tamit ñoom mbëri yi ah Gris Papa Sow et cetera ñoom Gris de Lac Rose ñoom général <laughs> ñoom maa ngi leen di bëggee di bëggee sama père per ba aussi di ko ñaanal jàmm ak salaam sama maman Sow dama ñaan ñaanal wér jàmm salaam sutura ak jàmm di la wax ne